xadiisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na ku wax laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lahul mulku lahul xamdu wa ala kulli cheyin qadir fukki yoon mi ngi mel ne ku goreel ñeent bakkan ci doomu ismail xadis bi dëppoo nañu ci qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man qaala laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahul mulku lahul xamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir asra marat kaman kaana ataqa arbaata anfusin min waladi ismail muttafaqun alayhi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 téeméeri kilomètre yu ne yokkal benn simili jant bi nana fenk juróom benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili yu toftal fanweeri saa di soo juróom-ñaari waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak juróom yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin